نستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم amma baab mbokki jullit yi maa ngi dénk sama bopp ragal yàlla leen ko dénk yoo xam ne am na jikko ju màgg ci lislaam ñu koy tuddee al iffa te mooy ak fegu waaye jikko la joo xam ne dafa ëmb yeneen jikko yu bari ci biiram ëmbaale na ak doylu ëmbaale na ak jomblu ëmbaale na itam gore moom jikko jooju al iffa te mooy lépp loo xam ne lu xaram la du suñu boroom tere suñu boroom yim la may bari na lool yim la tere moo gën a néew yi dagan moo gën a bari yu xaram su ko defee kon bokk na ci fegu bokk na ci jombul bokk na ci gore nga bàyyi suñu boroom araamal ak yi mu tere waaye itam bañ a teg sa bët ci li mu jox ñeneen ndax itam li mu la jox bari na lool te jox na la loo xam ne itam joxu ko ñeneen kon nag da ngay dooloo li mu la jox doomu aadama bi du mën a nekk afiif mën naa ko fegu ku jomblu ku bañ a dugg ci lu ñu ko tere wala lu mu moomut lu dul ne dafa nekk afiif ci loxoom fekk loxoom du laal lu mu wërta laal nekk ku fekk aw làmmiñam du wax lu mu wërta wax nekk ku fekk ak déggam du déglu lu mu wërta déglu nekk ko fekk ab gisam du xool lu mu wërta xool bokk na ci ñàkk am fegu googu nag ci làmmiñ mooy di ñaawalaate ak a reetaan nit ñi ndax jàpp ne am nga loo leen tane loola ku ko def feguwoo ci saw làmmiñ bokk na ca nga leen di yëddu di jéem a xam seeni xibaar bokk na ca nga leen di jëw bokk na ca nga leen di yëjji ak a doyadal ak a ràmbaaj ak di leen wutal ay tur ak i dàkkental yoo xam ne xas rek nga ci jublu yooyu yëpp ku ko def fegoo ci saw làmmiñ bokk na ci ñàkk a fegu ci gis tàllal sa bët jëme ko ci yu xaraam yi di ko xool ak di xool taari àdduna foo dem fu nekk rek mbirum àdduna nga fay xool loolu itam ku ko def feguwoo ci sab gis bokk na ci ñàkk a fegu itam ci sab dégg di déglu yi nga xam ne yu xaraam la yoo xam ne waree su koo déglu loolu ku koy déglu itam feguwoo ci sab dégg li nga xam ne daal mooy tënk ak fegu ci cër yépp mooy nit ki bañ a boyal ay cëram benn cër bu nekk lam jagoo moo xam loxo bi la moo xam tànk bi la moo xam bët bi la moo xam napp bi la moo xam làmmiñ bi la benn bu ci nekk la mu jagoo mu bañ koo jëme ci lu dul loo xam ne lu ko suñu borom tabaraka wa taala may la te bañ caa topp bànnee xam bañ caa toppi bëgg-bëggam ngir am solo goo xam ne jikko jooju am na ko solo muy al iffa muy fegu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam soññe na ci addis yu bari abdullah ibni amrin radiallahu anhuma nee na yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa wax ne ñeent yii day ku ko am leneen lu la mën a rëcc ci àdduna itam amul solo mooy ngay sàmm kóllëre mooy nga dëggu ci say wax mooy nga rafet ci sa jikko mooy nga amuk fegu ci li ngay lekk ak li ngay dunde fexe ba doo lekk lu xaraam doo lekk lu dagadut yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon na ci yar saxaaba yi ci jikko ju màgg jooju abi zarin al xifaari radiallahu anhu nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da koo wax ne yaa aba zar waaw bu ab xiif amoon nit ñi xiif lool yow itam nga xiif ba mënoo taxaw mënoo jóg ci sab lal dem ca jàkka ja nooy def ne ma ne ko ah yàllaa ko yonente de moo xam nu may def mu ne ko boobaa na nga fekku loola bu mu la tax a dugg ci lu araam mukk bu mu la tax a jël loo moomut bokk na ci misaal yi gën a yéeme ci wàllu feggu googu loo xam ne saxaaba yi dund nañ ko mel ne abdurahmaan ibnu awf ak saad ibnu rabia am ngeen saxaaba yi bi ñu gàddaayee màkka ñëw madina te ñu jógee màkka ñëw moom ay doxandeem lañ fi amuñu fi dara amuñu fi kër amuñu fi tool amuñu fi dara ndax dañoo bàyyi lépp fañ jógee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da leen a mbokkale ku jóge màkka ku nekk mu boole laak ku dëkk madina ne la mooy sa mbokk ngeen bokkoo ngeen ànd dem seen kër abdurahman am nu awf ñi ngi ko boole woon ak saad ibnu rabia bi mu demee saad dane ko damay séddoog yow sama njaboot ak sama alal maa ngi ak ñaari soxna mën naa cee fase kenn bu iddaam matee nga jël ko sama alal itam dëkk bi kenn ëpp ma fi alal mën naa koo séddoog yow waaye gis nga abdurahman dafa fegu lool te daa dul teg bët ci liñ ko jox ak liñ ko dig waaye da koo wax ne rek yàlla na la yàlla barkeelal sa njaboot yàlla na la yàlla barkeelal sa alal waaye wan ma marché bi rek wan ma yoonu marché bi mu daal koy tegtal marché bi mu tàmbali di xëy ak a gont di xëy ak a gont di jaay ak a jënd buñ dina bokk ci ñu ëpp alal ci biir madinatul munawwara abdurahman moomu mujj na ca bokk kon ki ñu ko booleeloon joxe na misaal mu rëy ci isaar mooy ëfle sa mbokkum jullit nga atte koo attan koo bàyyee li nga am wala nga attan koo séddoog moom waaye kay itam joxe na al iffa joxe na ngor joxe na doylu du caagee ni luñ la dem mi ngi nii rek nga daal di jël moo tax da ko ñaanal barke ca alalam ak njabootam laalu ca dara daal di daan dooleem dem ca marché ba jaay ba mujj am alal lool mbokki jullit yi jikko jooju di fegu di doylu di jomblu di gore ay xeet la la ca jiitu mooy nit ki fekk boppam ci li yàlla xaraamal ak mbooleem ñaawteef yi téye aw làmmiñam ci deri nit ñi bu mu teg làmmiñam ci deri nit ñi di xas ak di ca wax lu mu xamut lu mu ca xam sax waru koo wax waxuma laa lu mu ca xamut ndax yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na ab jullit dëgg mooy koo xam ne jullit ñi dañuy mucc ci làmmiñam mucc ci loxoom làmmiñam du ca wax kenn lu lay lor waaye loxoom itam du ca def kenn lu lay lor bokk na ci misaal yi ci alquran tudd suñu boroom a ngi wax ne ku toll ci war a wut soxna te amagoo moyen nee na na nga fegu bu mu la tax a dugg mukk ci moy nee na na fegu te sabablu ba yàlla woomalal ko lu mën a wute soxna wala yastaafifi allazina laa yajiduuna nikaaxan attaa yuxniyahum allahu min fadli bokk na ca misaal yooyu itam suñ boroom ne jigéen ñi nga xam ne dem nañ ba nekk ay mag nee na ñooñu aayul bu ñu nekk ci seen biir kër ñu teggi seeni muuraay maanaam ñu sol yére yu woyof te nag bañ a feeñ ci ab taar waaye nee na téewul sax nag bu ñu doon muuru ak bañ a feeñal seenu yaram moo gën ci ñoom donte ñoom sañ nañ ko comme ay mag lañ te ci seen biir kër lañ nekk nee na yenn col yi mën nañ koo woyefal bu ñu nekkee ci seen biir kër waaye bu ñu ko ca tegoon sax nag sol col yu diis donte ci biir kër gi la ndax nit da leen fay fekk nee na loolu moo gën a ci gën a nekk ak fegu ci ñoom wa an yastafifna xayrul lahun bokk na ci misaali fegg googu yusuf alayhi salaam xam ngeen ne jigéen ja ko doon sàkku te doon boroom taar doon boroom daraja doon sax kilifaam ndax ñoom dañ ko fa jàppoon ab jaam tëj bunt yépp di ko woo ci boppam waaye yusufa lu mu wax maasallah yàlla tere innahu rabbi ahsana maswaay kii nga xam ne mooy sa boroom kër mooy sama njaatige te itam ni ma dalale rafet na lool kon duma ko war ci njabootam ndax kat kuy tooñ moom du taxe mukk gis nga kon kooku itam fegu gém fegu dem sax ba ne tëj ko kaso moo ko gënal loolu ñu koy woo bokk na ci fegu googu itam fegu li nekk ci loxol nit ñi doo leen laaj seen alal saw baan nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf na woon ku ma mën a warlul ne du laaj nit ñi dara ma warlul ko àjjana saw baan ne man saw baat ba mu waxee loolu duutul laaj daraati même bu waree ci fasam ab yaram wadd du ne kenn jot li ma yar boobu day wàcc jël ko doog a yéegat dara na jox ma dara du waxatu ko nit bi mu digganteeg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu ndax yonente bi daal ne ku ma mën a warlul ne doo laaj kenn dara ma garanté la aljana saw baat ne ko man danaa ko jéem ci la des ci dundam moom laaj may ma ndox wala defal ma defal ma nangam daal waxatu ko nit doonte lu yomb la lu jàppandi la sax waxatu ko nit suñu borom tabaraka wa taala ci loolu lay wax ne li ñuy joxe ngir yàlla nañ koy jox ñi nga xam ne lislaam moo leen téye fa ñu toog dañoo toog fa ñu toog di jàngale ak a jiite nit ñi ak di wan nit ñi lislaam ba tëlu ñoo wuti alal ni ko nit ñuy wutee nee na loola ku am looy joxe ci lislaam ñooñu lañ ko war a jox nee na ñooñu bokk na seeni melokaan soo leen gisee nañuy fegoo ak nañuy jombloo ak nañuy goree ba duñu laaj kenn dara nee na da ngay jàpp ne sax dañoo woobal boo xamul seen mbir lool jaxasoog ñoom boroomi alal nga leen di teg mu ne nag képp koo xam ne joxe nga ci ñu mel noonu nga xam ne ñoo toogal yàlla ci lislaam ndax lislaam faw mu am ay nit ñu toog di jàngale ak di jiite ci jàkka yi ak lu nit soxla ci lislaam ñëw laaj leen ko faw mu am ñu mel noonu ñooñu nag bu boobaa la nit ñuy wuti di xëy ca marché ak tool ya bu ñu ko defee kon ku leen soxla doo leen gis moo tax kon ñooñu lu ñuy joxe ci lislaam suñ boroom nee na nañ leen ko jox te ku leen ko jox nag la nga def lépp yàlla xam na ko bokk na ci itam ci feggu googu suñ boroom di wax ni koo xam ne dénk nañ la ay jirim dénk la seen alal su fekkee am nga dara bu laal alal ja su fekkee nag da ngaa wóomalut man ngay jël ca salal seen alal joojee loo leen di dundale wa man kaana ganiyan fali yastaafif soo woomalee bu laal alali jirim yi na nga leen dundal ci sa alal yow jaamoo ko yàlla wa man kaana faqiran su fekkee da ngaa nekk faqir nag fal yakul bil maaruf na nga ca jël waaye jëlin wu jaadu woo xam ne loo cay jël ci ñoom lay dem waaye bu ko dundale sa bopp bu ko dundale sa njaboot yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaroon na saxaaba yi ci fegu ci bañ a laaj moo tax jëlee na ci abi saidin al xudri radiallahu anhu mu ne ay nit ci waalan saar dañoo ñëwoon di laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu jox leen ñu del si waan laajaat ko mu jox leen ñu di ko laaj ba lam yoroon jeex mu ne leen lu nekk fi man ma yore ko day du ma ko denc mukk di leen ko bañ a jox waaye na ngeen xam ne ko fegu day doylu suñu borom tabaraka wa taala dana la jox lu la doy koo xam ne itam yam nga ci li la borom bi tabaraka wa taala jox bañ a xër loola suñu borom tabaraka wa taala dana la woomalal ba dootoo tala laaj keneen koo xam ne jéem ngaa muñ itam suñu borom tabaraka wa taala dana la dimbali ci muñ googu daal ne suñu borom tabaraka wa taala joxul kenn may goo xam ne gën naa yaatu muñ nee na muñ ku ko yàlla jox rek li ma la jox amatul keneen ku la gën a yaatule ak may ci suñu borom tabaraka wa taala ngir mën a am fegu googu nag gannaaw ndimbalul suñu borom tabaraka wa taala am na ay sabab la ca jiitu mooy ragal yàlla ci lu nëbb ak ci lu feeñ xam ne suñu borom tabaraka wa taala sa mbir yépp mi ngi koy gis sa yëngatu ak say dal ndax borom bi nee ne yaalamu xaainatal ayun wa ma tux fi sudur sa bët bi nga xam ne sax am la romb nga di ko bañ a xool di ko rog di rog di xool ko rog boobu nga def sax suñu borom xam na ko xam na nga catu bët nga ko xoolee nga xam ne ñi nga nekkal sax mën nañoo bañ a xam ne lii fi romb xool nga ko nee na loolu borom bi xam na ko waaye waxul loolu sax waaye la ngay xalaat waxagoo ko sax xam na ko yaalamu xaainatal ayun wa ma tux fi sudur bokk na ca sabab yi itam nag di ko ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu dàqal la lu ñaaw bu jëm see ci yow ndax yuusufa moomu kat loolu jëm si ci woo ci moom suñu borom tabaraka wa taala moo ko dàq kasaalika li nasrifa anhu suu wal faxsa lu ñaaw moo doxoon jëm ci moom suñu borom fël lu ñaaw la ba egsiwul ci moom moo tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam daana ñaan allahuma inni asaluka al huda wa tuqa wal afaafa wal qina da daan wax ne yàlla maa ngi lay ñaan ak njub maa ngi lay ñaan ragal yàlla maa ngi lay ñaan ak fegu maa ngi lay ñaan am koom bokk na ci sabab yi itam nag yar ci ndaw yi ci yarub lislaam jëmbat ci ñoom ay ngëneel jëmbat ci ñoom ak fegu jëmbat ci ñoom tënku ci attay sharia ñu bañ a tàmm laaj bu bari gone yu ci bari dañuy mën a ñaan lool te loolu boo ko tàmmee boo màgget loolu ngay bëgg a continuer moo tax kon ku yar say doom wóoloo na ci ñaan am ñaan bu bari ku ñu gis rek daal lay bëgg a ñaan loolu ku ko tàmm boo màggee dutu ko mën a bàyyi te loolu jikko ju ñaawa ñaawa ñaawa bokk na ci itam di yëglu yar ndaw yi itam ci di yëglu bala ñoo dugg ci néeg borom bi nee na yéen ñi gëm yàlla bu leen dugg ci néeg boo xam ne du seenum néeg lu dul ngeen yëglu nuyoo bañ na leen dugg leen ne bu ñu laa dañoo jàpp sax nee na nga dellu nee na loolu moo gën ci yow loolu itam bokk na ci liy tax a mën a fegu bokk na ci itam nag di damm sab gis bul def loo gis rek xool ko ba mu jeex loo gis gis ak xool bokkut gis moom da ngay egg ci dara rek gis ko xool nag yaa del siwaat di ko xool loolu la borom bi ne qul lil muminina yaquddu min absaarihim wa yaxfasu furujahum zalika aska lahum waxal ñi gëm yàlla ne leen dañuy damm seenu gis ñi gëm yàlla ñu góor ak ñu gëm yàlla ju jigéen lu bul gis loo gis rek xool ko ba mu jeex loolu baaxut da ngay xool xool bu yem rek dal di sa sajj sab gis bokk na ci itam di taqale gone yi suñu demee ba tàmbalee dëgër ñu di leen tàqale ci tëddukaay waruñuy boole gone yi ñuy tëdd waxuma gone yu góor ak yu jigéen waaye gone yu góor rekk sax waruñuy tëdd tëdd boo xam ne dañuy dankaloo ca fa ñuy tëdd war nañoo soree buñ mënta ñàkk a bokkub lalit waaye duñu taqaloo ca lal ba di soree loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ko jàngale nee na digal leen gone yi julli bu ñu amee juróom-ñaari at bu ñu amee fukki at bu ñu dee caaxaane julli na ngeen leen ci xupp bu jaree dóor sax na ngeen leen ci dóor waaye na ngeen tàqale seen diggante ci tëddukaay yi bu leen leen boole ñuy tancaloo di taqaloo bu ñuy tëdd loolu itam day indi yeneen yoo xam ne du baax bu ëllëgee bokk na ci itam di bañ a xool li nekk ci loxol nit ñi lu nit am rek nga di ko xoole ka yéem damay xooli diw wa fasu oto diw ba mu jënd këram nga laay seeti yooyu ngi dafa ne day mujj nekk sa biir xol ngay ñeetaane lool loolu day mujj dootoo doylu dootoo gis li la borom bi tabaaraka wa taala jox fotolu yaa ngi jéem a ñaan wala yaa ngay leb loo xam ne doo ko mën a fay yaa ngi dugg ci mbir yoo xam ne boo doylu woon mën nga caa bañ a dugg moo tax kon moo tax asanul basiri doon wax ne nit ki daal du deñ di nekk ku tedd nit ñi fonk ko li fee xemmee mët li ñu yor nit ñi boo tàmm tàmbalee xemmeem li ñu yor rek nga xam ne ku ne seen ngay ñëw danaa nangam lay wut si kee da ab da am na lu muy wut si nee na bu boobaa nit ñi duutuñ la tegati fenn dañ lay waye fal lool say wax sax duñ ko bëgg a déglu dañ naan wax jeeg jàmmante beeg yëpp bëgg a laaj rek la bëgg ko jox rek la loolu bu ko nit ñi xasee xam ci yow duutuñ la teg fennati ñu xam ne nag fegu googu jikko jooju ku ko am am na meññeet yu bari yu lay jural la ca jiitu mooy société bi dañuy mucc ci ay ñaawteef dañuy mucc ci ay ndëngte ndax bu kenn ku ne doyloo la mu am fegu nga xam ne lu muy amit nit ñaay xool ba gis ne yeyoo na ko ñu jox ko ko waaye du leen la jël di ko laaj boobaa jàmm mooy am ci biir société bi ak taxe itam day am bu boobaa ndax nit ki su wuuteeg bëgg-bëgg bànneexam juyoog bànneexam li mu koy laaj day daal di yëg bégte day daal di yëg kontante loola itam day waral sutura ndax laaj bu bari itam day xotti sutura day tax la la borom bi tabaaraka wa taala suturaaloo nit ñi defoon ne jekk nga waaye nga muur yi mbalaan ma di wari na yow amoo dara foo toolu di jàmbat loola bu boobaa sa sutura dafay dem moo tax Almaawardi doon wax ne lislaam dafay yóbbu nit ki ci sutura da ko yóbbu ci ak fegu da ko yóbbu ci ak doylu da ko yóbbu itam ci doyloo li ko borom bi tabaaraka wa taala jox kon nag jikko jooju nañ ci bàyyi xel bu baax te di ko ñaan suñu borom allahuma inna nasaluka alhuda wa tuqa wal afaafa wal ghina wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in